joxe nañu téeméeri junni ñoom itam soxna Mariam ñu ni nga jël sa reçu bii kon nag ñu continuer ci waxtaan wi ndax balaa sëriñ bee ñëw léegi nag ah ñu jaayante booyoon ñu teg carnet yi bu bu bu bu ëllëgee ñu jaay ko léegi jaayante xew teg leen carnet yi. jërëjëf Alaaji kon ñu teewlu imaam Cheikh Awa Balla Gueye defe naa ñépp képp ku di jullit rawate nga di taalibe murit xam nga kan mooy imaam Cheikh Awa Balla Gaye mii kon imaam ñu ngi lay dalal bismillah bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallam ala xaatami alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa xabibina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا وقرة أعيننا محمد بن محمد ابن حبيب الله خديم المصطفى صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ma ko sañoon sax daanaka dama naan asalaamualeykum na lima aayantu fi haadihi alqaa min niswatin kiram lahunna ma lahunna min alhimam alaaliya منذ عرفتهن في نيويورك وفي إيطاليا وفي ألمانيا wa nahnu wara almujahidi alkabiri mawlana cheikh mohamadin almurtada radiallahu taala anhu wa yabsulna ka aadatihinna ma yabsulna min aljuhudi aljabbara fi xidmati seyqi alxadim fa jazahunna allahu jazaan waafira mas na maa wax ci New York ni bu ma deetee ñëw faaw ma wutug musóor ndax làngu jigéen ñi dafa mel ni neex naa bopp ndax dañoo jàmbaare jàmbaare nañu te feeñal nañu tey njàmbaar gi fii ci Ndakaaru dajaloo gi ñu dajaloo àndandoo wuy si Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam li muy tekki mooy Tuubaa ak gaal la gu ñu war puus mu jéggi jëm ci développement ku nekk ci biir gaal gi nag bu ñuy puus jàpp naa ni yow yow la ñuy dimbali kon waa Touba wone nañu loolu dinaay wax ni ku dëkk Touba ak ku xam Touba mbaa ngay romb Touba mille francs war na la weer wu ne ngir lan ngir daganal sag nekk Touba ndox mi ngay naan làmp yi ngay niitoo mbedd yu set yi ngay jaar ngir nga bokk ci ñi ko fi def ba boo fay dox sa xel dal la la koy may mooy ngay def ci Touba kanam mbooloo la moo xam ni nun ñépp sawar nañ cee bokk ngir lan di laaj lu ñu xam lu ñu man di ko def ku ñu gis mille francs jàpp naa ne ñun ñëpp mën nañ ko waaye li ñu gis ci ay hôpitaux gis ko ci ay mbedd yu ñuy defar gis ko ci làmp yu leer gis ko ci ay nit yu néew doole ñu di leen dimbali te léegi-léegi bu ñu la waxee som bañ ca def dangay jàpp ni boobu som wër ta defar loolu boobu som wërta defal loolu kon Touba ca kanam ubbi ay buntam ni nga am sañ-sañu waaxu tàbbeel ci sa miin noonu sax nga am sañ-sañu taxaw laaj li ngeen di def nu ngeen koy defeek fu mu jëm lu ngeen fere ñaataa ci des même ku ci bokkul may nañ la loolu kon ak leeral mënta weesu loolu te leeral dafay dimbali waa ji dox kuy dox ku ne bëgg nga lu leer même ñi nu yilifoon dañ doon leeral maa ngi fàttaliku jàmbaar ju mag ja Mawlana Cheikh Abdoulaye El Ahad bi mu fi nekkee ba ci at mi mu fiy jóge dafa woo mboolem daaray tarbiya yi ñu wër ko mu ni danoo àndoon di liggéeyal Serigne Touba at yi nu ànd yépp nag dama leen a bëgg a wax at mu ci nekk lu nu bay ñaata la fan laa ko dugal ma soog leen a yeewi ngeen ñibbi moo ndax waru la koo xam ne liñ ko jox bu ko neexee taal ko waaye tax mu taxaw leerala leen lépp ba mu leer ni leen alhamdulilah ñaanal naa leen dem leen ci seenu njaboot lii la sëñ Abdou mu jóg daje ak njaboot ji kon yoon wii ngeen jaar dangeen ngeen koo royee ci Cheikh Abdou Lahad kon yal na leen yàlla fay euh, waaye nag 1000 francs yomb na lool tey ñii toog ci saal bi kenn ku ci nekk war ngaa fas yéene bisib tey bii comme nekkoon naa ca saal ba démb mbaa toogoon naa ci télévision di leen dégg loolu yi képp danaa ko fayee 1000 francs nag ku nekk ci noonu war warlu nit balaa jant bee fenk di nga dugal ci biir keesu Tuubaa ca kanam sa 1000 francs nun ñu toog fi yépp mbooleem bopp yi may séen ak ñi toog di déglu rajo yi wala ñuy seetaan télévision yi seen warugar la ñu participer ko ci bisu tey bii du 1000 francs yi ngeen di jënd de waaye yooyu moom lu mu néew néew kenn ku nekk na ko jaayante kenn ku ne na jaayante loolu mbokk yi damaa xam ni euh, gaa yu baax yaa ngi fi boo ni woon indi leen nangam léegi sees yi toj waaye nanu fas loolu rek waaye ku am somme bu rëy nag moom na ko daal di indi am na ñoo xam ne nii nag ñoo ci war a jiitu gi nga cekkee ni ñi sant sekk ñu ngi may dégg Touba daa bari xéewal lool daa bari xéewal te ñoo gën ñëpp comme na yéen yéen a man ci jëfandikoo xéewal yi kenn ku nekk million laa la sase cee kenn bu ne million laa ko sase cekkoon yaa ngi may dégg xam nañ seen wàll ci nag wi mën nañu ko nañu ko gaaw andi njaween yi bu ñu amee cinq cent mille baax na noonu ngeen yi nag ku am cent cent mille mën ngaa ñibbi sa kër yàlla boole defal dégg ak topp te defal leen tawfiix di nuyu sëriñ Habibu di nuyu sëriñ Abdul Ahad di nuyu Cheikh Guèye mi nga xam ne moom mooy jiite yëf yi te leeral lool lool lool kontaan naa lool bi mu santee Guèye am ngeen leeral am ngeen day wér am ngeen du lii daal lañ leen ñu na jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Cheikh Awa Balla Guèye bég nañu lool xam naa cekkeen yi nga wax day jël su sekk mi ngi may dégg sëñ Màlle maamam moo doxoon fekk sëñ Bamba xumaag xam naa moom bu ngoonee dana dana yónnee téeméeri junni ajaratu astu sekk sëñ male maamam moo doxoon fekk sëñ Bamba xumaag ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi wax nii am na nu gan gu ñëw ki yegg si léegi mooy kenn ci réew mi bàyyam nga ubbee Cheikh Mahamadul Murtada góor yàlla ci tasaare ji ci Afrique ak ci Europe soxna maam Xari Mbakke moom Cheikh Mahamadul Murtada moo yegg si léegi yàlla Mbakke ñu ngi lay siyaare waa Touba ca kanam yónni leen ma ci yow nee nañu añ yi ak reer yi ci togg yaa joxe doog a dañ ko ko digganteeg moom demal nii demal nii fii. ka sëñ Bamba ka sëñ Bamba fii ci Sénégal dem na Amérique jëndali sëñ Bamba kër ku ne ma Amérique danaa kër Ndakaaru sa baay sa baay moo tuubloo américain yi sa baay moo tuubloo tubaab yi sa moo takk sëñ France sa moo takk sëñ Bamba Allemagne moo takk sëñ ci Afrique ak ci Europe sa moo mujj ñëpp sëñ Bamba am néeg boo ca fàttee sa montor laaj ko ko ci mujj mu mën a fali sin toog leen sibri sëñ Mbacke maanaam Cheikh Moustapha mi tiita foncé Touba collecteur yi armée yi fondation yi jumaa ji boog ñetti goudron yi jële sëñ Bamba njeeri mi di ko ci biir moo ko ne Ahmadou Ahmadou maam xëri maam xëri sa bàyyi moo ma ne woon Abdoulaye gi mi ngi ñaaloo gay naagu taxul del tudd yàlla sa bàyyi moo ma tabaxloo jàkka yi moo ni ma bul ñaalo gay naa ko kenn naa la defal nga tabax jàkka yeeg jumaa yi àllëgee ma wane la la sëriñ Bamba sa bàyyi fu mu yóbbu man maa ko doon séntu bu duggee caabi yoo bale sëñ Mbacke maaram boo jëfee jëf ju toll noonu war nga ñu ko Cheikh Moustapha sa bàyyi ca la kooko nuyoo si kookoy ko rek bàyyam a tax maa fa ànd ak bàyyam bu kër sëñ Bamba amee Côte a bu kër sëñ Bamba Gabon bàyyam a bàyyam a dem Mayumba man laa ndam moo décrété bo boo ngaa décrété sa suuf sa jox ko Cheikh Mourtala Cheikh Mourtala teg ca xeeru Turéel teg fa xeeru jumaa grâce sa baay mbala si biir sëñ Mbàkke Maaram boo ñëwee war na ñoo xam ne ñëw nga maa ngi lay siyaar jërëjëf Baye dañuy profité rek euh, delloo kàddu gi Serigne Saliou Diakhaté defaral ñu micro bi ngir mu def benn synthèse ci soxna fi waaye di nuyu aussi tamit en Afrique rawatina waa Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger ak ñi nga xam ne ni ñu ngi partout dans le monde mboolem fu coordinateur nekk waa Cap-Vert Italie Espagne ak waa Amérique nga xam ne ni ñu ngi ñuy déglu mboolem fu coordinateur Touba ca kanam nekk ñu ngi lay nuyu. dafa am léegi waa bitim réew dañu ma woo ndax sëñ Abou Bousso mi toog moom la ñu féetale bitim réew boo fa demee danga xam ni ñooy jàmbaar ci Touba ca kanam kon sëña Abou ñu ngi lay siyaar ñaanal yàlla guddal sa fan toog nga fi tey waaye bitim réew nga fi toogal ñoom ñëpp diaspora bi ñuy jàkkaarloog noonu jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Aliou soxna Loo Gay bëgg xaadim ànd ak jawriñam sëriñ bay Silla jaayante na léegi ñu wax ne ñi nga xam ne ñoo yor mbuus yu werte yi képp koo xam ne kii am nga looy joxe mu jëm ci Touba ci kanam ñi ngi war biir saal bi ngeen bàyyi leen xel def ko foofu jërëjëf waa diaspora bi fàttewuñu leen suñu mënta lim mbooleem coordinateur rek na ngeen xam ne boole lañ leen koy yéen ñëpp Mbacké sunu mbokk da nekk di jàmbaar ci kër Serigne Touba Moustapha Samb moom Serigne Coyibu sunu mbokk waaye di taalibe Serigne Bamba di murid sadi moom mi ngi toog jàkkaarloo noonu ñi soññi ñi toog ci te bëgg yónnee lu waay yónnee boo ma ko waxee danaa ko wax daañu ko bind te Serigne Touba tax soxna Ndeye Fatou Gaye mi nga xam ni dafa nekk ak sama directeur Bougane gi Dany yegg si na indi na fi juróom fukki junni ak waa télévision Sen TV yëpp Bougane ku ne xam na ne taalibeem Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal waaye gërëmaat nag Alaaji Njaay bu baax taxawaayam jëfam Touba jërëjëf Bougane Guèye euh, kon ñu delloo kàddu allo Serigne Saliou jaxate ngir mu def benn synthèse bu ko defee ñu daal di jox sëriñ sëriñ Bamba defaral ko micro bi jërëjëf ñuy fàtt rek ne sëriñ Assane Gueye ingénieur hydraulique ànd na ak nijaayam sëriñ Mbaye Mbengue euh, sëriñ Abdou Fata ñu di la wax ne sëriñ Assane Gueye moomu ingénieur en hydraulique liggéey bu rëy bu muy ak dëgg yee boppam ngir liggéey ko ci biir Touba ca kanam kon na kuréel gi jël contact ak Serigne Assane ingénieur la en hydraulique te liggéey bu bari ci Lac de ci wàllu ndox moo koy liggéey nee na joxe na boppam Touba ca kanam sëñ Saalu bismillah micro bismillah sëñ Saalu bismillah eh, Eh, jërëjëf sëriñ Aliou ak sëñ Abdoulaye ak mbooleem ñi nekk ci kàddu yi eh, ñi ngi sant bu baax kon soxna Guèye di jiital sant gi nag ci soxna Bint mi jiite soxna yi eh, doy na rek buñ ko tuddee mbooleem jëwrinam yi ak soxna Rama Diouf mi coordinatrice bu nekk ci bokk ci coordinatrice Dakar yi soxna Guèye mi doon def waxtaan wi nag ñëw naa ñun ci poñ yu am solo moom it ñu fàttaliku baax na moom membre la ci Touba ca kanam euh, scientifique bu jaspora xam na ko bu baax ci soññe yeeg liggéey yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy bokk ak ñoom Touba ca kanam mi ngi koy sant di ko gërëm ca mooy ñëpp rek ñëw na ci jeexit yi nga ci li tax euh, njaboot gi war a bàyyi xel Touba ca kanam ba ca ëpp solo nee na mooy wàllu pas-pas leeral na ko ci ay détails yu baree bari suñu digganteeg sëriñ bi ak li nga xam ne war nañ koo def joxe ji ay exemple yu leer ci saxaaba yi niñ daan def euh, ci jaayant seen diggante ak yonente bi ba ni mu ñaareelu poñ bi it ñëw na ci daan na yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne ne euh, ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci ñoom ci seeni soxla am na faneen fu naan xayrukum euh, xayrukum linnaas waaw xayrukum anfaukum linnaas daa bëgg wax ki gën ci yéen mooy ki gën a jariñ ci yéen nit ñi mu wane ci ne loolu euh, liggéey bi ñu leen di defal bi bi bi bi bi ngeen di defal Touba ca kanam ci intérêt bi ci njaboot gi rek lay dellu ci dellu ca loolu nee na xidma la tudd xidma it fàttali na ne Serigne Touba nee na ëllëg ci Masaalikul Jinaan buntu bu mu tuddee sadaqa wal infaq wax na ca ne ñi doon def xidma ëllëg kenn du leen laaj dara dañ naan leen jàll leen tàbbi àjjana muy lu am solo loolu am na ci addis bu wér boo xam ne abu hurayra moo ko nettali eh, mi ngi ci sa saxiixu muslim ni ñëwee ci saxiixu buxaari yonente bi di ci nekk di ci nettali baqiyan min baqiya bani israil jigéen joo xam ne métier moo nekkoon du ñàkk jaay boppam mu am xidma bu mas a defal benn xaj bu mar mu wëgg ko ba mu mànd eh, suñ boroom jël ko fa fa fa xufira laha la wax suñ borom daal ko ci jéggal ngir xidma boobu mu ko defal ñaareel ba it ñetteel ba it ñëw na daal ne Touba ca kanam li muy doxee dafa dëppoo ak gis-gisu sëriñ bi ci wàllu développement ak ci wàllu yu baree bari euh, ñaar ñetteel ba it ñëw ñeenteel ba it ñëwaat na ci ne Touba ca kanam waa tubaa ca kanam li leen gën a ràññale mooy dañuy xool priorité yi murit yi ñu fesal ko ñu jëmmal ko daal ciy tudd yu bari tudd na ci daara yi ñu daara yi Touba ca kanam tàggat muy waa scientifique et culturel deux cent soixante personnes yi nga xam ne formé nañ leen ci formation yu dëppoo ak suñuy tradition yi nga xam ne daara mënu koo ñàkk ci daara juy dund ca Touba euh, lool it bu ñu ko waxee muy formation yu am solo ñi ngi ciy sant di ci gërëm it ñi nga xam ne ñoo yore wàllu formation professionnelle muy office national de la formation professionnelle ñoom it rafetlu nañ liggéey bi ba commencé cee bëgg a jëflante ak Touba Euh, euh, ba tey it mu wane ci ne loolu ci suñuy ci devise yoonu murid la bokk ci devise yoonu murid ni ngeen ko xamee mooy li ñuy tuddee al ilmu naafi wal amal wal al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi waaw euh, jëf xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak teggin yu dëppoo ak ni ko sëriñ bi jàngale teggin yu ñu gërëmloo yu ñu gërëmloo loolu it sëriñ bi firi na ko ci ay téeram yu baree bari Euh, mu wane nag ne Touba ca kanam poñ boo ci jël rek xidma la manees na ko tuddee ne sadaqa jaariya la yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ne ci sadaqa jaariya la yëpp daje daje na ci Touba ci kanam bu dee joxe am ndox sëriñ Abdul Fatah ñu ngi koy sant bu baax ci leeral yi leeral na ko ci bu baax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne sahaabi yi bu mag laaj na ko ne ko ban sarax moo gën a ci saraxe yi mu ne ko sarax sarax ndox boo gisee. addisu baqiyan min baqaya bani israil bii sax fa xufira la borom xam-xam yi dañ ciy commentaire ne li tax yàlla jéggal ko mooy la mu euh, xidma bi mu defaroon xaj bi mooy da ko wëggoon da ko wëggaloon da ko joxoon ndox mum naan te gis ngeen Tuubaa ci kanam ñaata kilomètre la commencé tasaare ca ndox ma ca dëkk ba euh, tudd na ci it lu mel ne daara yi muy tabax Tuubaa ci kanam tabax tabaxagun na lu ëpp téeméeri daa daara yu mu defaraat defaraat na ba pare fi mu ne nii mi ngi defaraat lu nekk en cours juróom benn fukki daara ca loolu jógewul fenn ci lu dul ci seen ñaar téeméer yi ngeen di joxe naka noonu euh, ci wàllu social li ju Touba ci kanam di def moo xam euh, lu logement sociaux yi muy def wala ñi muy jàppale ci wàllu dépense ak yu ni mel euh, loolu it Serigne Touba moo ko ñaanoon moo yaanoon ñaanoon ne baayoo bi bu nekkee ci moom nay fàtte ay këri baayam wal tubassir bi al man dawaman ansihim bi abaahum kulla xiini yow suñ borom maa ngi lay ñaan jirim yi ak baayoo yi bu ñu nekkee fi man na saa kër dàqal leen seeni kër bàyyi ba nañu ko fàtt nañu ko fàtte loolu it soxna si indi na ci ay leeral ñi koy sant bu baax di ko gërëm ci turu Touba ca kanam ci muy kenn ci ñoom kon dañuy bañ a guddal rek dugg ci kàddu yi ak docteur euh, Bamba docteur Serigne Ahmed Bamba Diagne mu ñëwal ñu ci poñu ñaareel bii nga xam ne dana ci ñëw ak ñun muy e, wàllu yokkute ci wàllu koom-koom wi nga xam ne dafa war a modèle yokkute ci wàllu koom-koom ba pare di jógee ci njaboot gi di jóge ci nit e, kon sëñ Ahmed Bamba bismillah eh, jërëjëf sëriñ jërëjëf Serigne Saliou euh, ngeen baal ma rek ndax dama fee représenté communication waaye dama fee teewal benn dëkk bu ñuy wax Mali te jamono ji ñuy wax nii suñu téléphone bi mu ngi toj ci coordinateur yi nekk ci partout dans le monde entier ñu ngi nuyu waa Mali bu baax a baax a baax kilifay Mali yépp euh, rawatina bi nga xam ne nii moo jiitee Touba ca kanam ba Serigne naa Thiam Mandiaye Dame fay ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare Lamp Thiam Cheikh Lifa di nuyu aussi tamit waa Gabon Pape Ciss wax dëgg yàlla waa Niger Modou Atta Seck mi ngi toog fii bu Guinée Bissau waa Côte d'Ivoire siare nañ aussi tamit waa Amérique yéen ñëpp ñu ngi leen di saare kon ñu jox Serigne. jërëjëf toog sëñ Aliou defe naa jaspora bi bu ñu leen bëggee lim ci la ñuy fanaan nañu xam ne jaspora baa ngi liggéey liggéey bu am solo kenn ku nekk dëkk ba nga nekk yaa ngi koy liggéey liggéey bu mucc ay kon kuñ fi tudd kuñ fi tuddul ne yaa ngi ci biir liggéey bi ñu ngi jéggulu ci loolu soxna Mati Mbàkke ànd na ak jigéeni Bamba yi ñoom ñépp ñu ngi fi Seydina Omar Bousso représentant au xalif fii ci Géejawaay dalaloon fi dal bu mucc ayib mi ngi fi sëriñ Xaadim bismillah mbooloo ñu ñëw ci saal bi te jàkkaarloo nun biir réew mi ak bitim réew wees bi def nañ ko ci écran bi Orange Money def nañ ko ci écran bi yéen ñi bëggoon ñëw ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew te mënu leen ñëw fi ne yéen laay waxal yéen a ngi jàkkaarloog numéro yi compte bi compte baa ngi dox gaañaa ngi jëkkante ku nekk la gën la ca sa gaal sëñ Bamba ko jox maa ngi ñaan ngeen songu Orange Money bi ak Wave bi lu waay am na ko ci dugal bu subaa daanu jot lépp su ko defee Cheikh Abdoul Ahad moo waxoon ni jege ju sori ak sori ju jege Orange Money ak Wave affirmer yëpp a ngi dox ñu ngi koy affiché ci écran yi murid yi jàkkaarloog écran yi te am yéene ñëw te mënu leen a ñëw te sëñ Bamba jox leen li ngeen yor dugal leen ci Wave ak Orange Money ak Free Money lépp money la docteur ñi ngi jégalu bu baax de waaye nag ak taalibe rek a deux heures fi la ko fekk te boobu ba léegi mi ngi toog kon ñu teewlu ñu teewlu docteur xaadim Diagne <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant bu baax a baax ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi santaax bu baax suñu boroom ci boole gi ñu booleeg Serigne Touba di se nuyu Serigne Abdoul ak bépp yaram bi fi toog euh, di ñaan yàlla fi ñu fekk Touba ca kanam ren déwén mu nekk fu ko gën a kawe ndaxte dama jàpp ni euh, booy jàng Matlabul Fawzayni da ngay xam ni yéene Touba ca kanam mooy li ci sëriñ Touba nasoon yépp ñu defal ko ko te ku xam Serigne Touba xam ni lu mu wax dina am léegi nag day des ci ñun ñu def ko walla beneen génération def ko donc bu amee ñu jóg fas yéene seen liggéey yépp muy fexe ba lépp lu Sëriñ Tuubaa nisaroon ndax mag ñi dañu wax ci histoire ni am na ci jamonoy Sëriñ Moustapha Mbàkke ki doon jàng mat Matlabul Fawzayni di gis li ci Sëriñ Tuubaa wax ci dëkk boo xamante ni dafa dafa àlle woon loolu amul woon dara mu gis li ci sëriñ Touba di ñaan mu mel ni ku ci am gam-gam ndax lii mën naa nekk sëriñ Moustapha Mbacke na ko li ma sëriñ Touba wax te teguma ci sama bët laa gën a gëm kaas kafe gi may naan muy wane ni donc li nga xamante ni sëñ bi namm na ko ala kulli alin dina am yàlla ñu bokk ci ñu koy taxawal boo xoolee nag Touba ca kanam. li nga xamante ni moom la ñu xaar ci moom surtout ci Touba ndax dafa am commune de Touba am communauté Mouride commune de Touba Touba la yem waaye communauté Mouride mi ngi fépp ci àdduna ndax Mouride yi ñoo ëpp ñu dëkk Touba te Mouride yépp benn yaakaar lañu am benn ndam lañu am muy ndamu Cheikhul Khadim donc war nañoo xool ci sur le plan culturel. sur le plan économique sur le plan social ba ci sur le plan politique yan yoon la Touba ca kanam war a jaar ngir suñu dëkk ba mel ni ko Serigne Touba bëggee woon ndaxte boo xoolee li soxna Fatou wax léegi ci wàllu njàng mi li ci Touba ca kanam def damay naan li Serigne Mountakha def ren ci xam-xam. diggante 2020 ak de vingt an li sëñ Mountakha wane ci xam-xam war na tax kenn ku ci nekk ci ñun wara yokk lu muy jaayante ndax xam-xam ndax Sëriñ dëkkam bi dafa bëggoon mu nekk dëkku leer te négani si daaw ba Covid bi ba xawee bari tuuti nee nañ ñun ñëpp toog leen seen kër bu kenn génn waaye dañoo fàtte ni suñu borom moo ñu ne lépp lu mu sàkk nit moo ko ci gënal ne nit nag yow yaay sama xalifa ci kaw suuf moo tax ba ñëpp dawee làqatu seen kër ba sëriñ mu Muntaxa génnee taxawal suñu borom won ko ni sa représentant ba ilaa yomi diin du daw responsabilité am dafa jar lépp lu ñu doon def ci diine wala ci njàng ci wutum xam-xam ñu dolli ko ndax xam-xam moom euh, Covid bi daaw saf na sàpp ci ci ci Touba ndaxte damay naan bu dul woon Touba dina ñaaw lool ëllëg ci suñu suñu diine bi Sëriñ Touba nag bu ba muy ñaan ci Matlabul Fawzayni da koo ñaan mu nekk dëkku leer ñaan ko mu nekk dëkku yërmande loolu mooy tax nag Touba ca kanam problème bu mu nar a am mooy Touba dëkku yaakaar la ku nekk sa dëkk toog fa. yàgg fa dem ba amatoo xëy na loo mën a dundalee sa njaboot nga takk say bagage daw ñëw Touba moo tax Touba population bi ni muy yokkee dafa ëpp lool koom-koom bi ni muy yokkee te bi bu dee nit ñi ni ñuy yokkee moo ëpp koom bi ni muy yokkee buñ ci trouvé wul solution bombe sociale bu bu kéemaana lay doon muy war a jaral kenn ku ci nekk ci ñun xam ni. yaakaar bi nit ñi am ci Serigne Touba ba tax ku ci nekk bàyyi sa dëkku maam ñëw ci dëkkam ba seen yaakaar warul tas ndax Touba du dëkk bu yaakaar di tase loolu nag sur le plan social dafa laaj ay dépenses ndax Touba sancaan yi day yokk te day gën a bëri ndaxte dame naan politiciens yi sax yenn saay bu ñu amee ay jiixi jaaxa ak état dañu dañu bëgg a daw làqatu Touba donc dëkk la boo xamante ni dëkku yaakaar la te yàlla bu yàlla tas yaakaaru euh, ñi nga xamante ni lu leen mën a dal jàpp nañu Touba mën nañ faa mën nañ faa mucce donc bu nit ñi di daw di tafu si ci dëkk bi te dëkk bi amul ay ressources yu tolloog nit ñi nu ñu ñëwee lu ñu mën a régler seen problème dafa jar ñu xalaataat bu baax nan la ñuy def ba ci wàllu koom-koom dëkk bi am loo xamante ni mën naa tax mu garde nekk dëkku leer garde nekk dëkk yërmande mais garde nekk dëkk boo xamante ni dëkk